ne lii wax la bu am njëriñ dañoo wax ne ku amul juróom-ñeent doo am juróom-ñeent la ci njëkk mooy ku amul xel du mën a am ngëneel ndax xel mooy cosaanal mbaax ak ngëneel ñaareel ba ku amul xam-xam du am daraja ñetteel ba ku jëfut du am tuyaaba ñeenteel ba ku ànduta yéene ju sell ca la mu séentu ab kenn du ko fay ci jëf ji dara ba ca fegu maanaam seexlu lépp lu mat a seexlu ku amut seexlu googu du am diine ju sotti diine moom faaw boroom day ànd ak laab di seexlu lépp lu mat a seexlu ku amul jikko ju rafet do am xarit ba bo amé xaritit man na am du yag ba ca top ku waye di do am xalaat manam lu way rafet rafet xel xalaat na ca boole ak way waye ku amutu way bu xalaate ba gisit tutax mu am dogu sax ci lamu mu xalaat wéy ca ba jarignu ca moko amul xalaat ñooye ba ca topp mooy ku amul ak lewet ak dënn bu yaatu la jiital mbaa njiit ga du yàgg kilifteef moom kañ koy dox mbaa kay yàlla nekk kilifa daal ñu jiital ko mooy ko am dënn gu yaatu ameeg lewet di jëfandikoo xelam ak xolam te bañ a topp meram akuk ñàkk sago ba ci mujj nag mooy koo xam ne aw yiw du bàyyi ci yow jëm ci keneen bul di séentu aw yiw bàyyikoo ci keneen ñëw ci yow ku tabe nag ci alalam tabe ci aw ñaqam saye boo mu séentu ne faw yàlla faye ko yabal mbindeef yi ñu jëmale ci moom seen alal ak seenu ñaq